ni waaw uh-huh. surtout tonton Mansour uh-huh. dama ci ànd ak mbégte moo xam ni maa ngi seetaan Petit Galle vraiment Futurs Médias mun ma leen a fay uh, di gërëm nag kilifa gi nga xam ni mooy Youssou Ndour uh-huh. mi nga xam ni dafa tàmbalee ci ci lu dul dara. ba mm. ak fi tey ba tey mu créer emploi ci réew mi. Mm-hmm. kon kooku amul mu payam. wallaahi amuñu payam. ndeysaan nga dégg sunu sunu sunu doom yi sunu set yi reprendre tonton Mansour. Mm-hmm. d'ailleurs ñu ngi def scénario pour clip bi ah. waaw bi. parce que parce que mais clip la boo xam ne sargal lan ci sargal laa koy tuddee. sargal nga koy tuddee. ndax yaakaar naa ni ñi nga xam ni tonton Mansour xam nga ndar la juddoo. Mm-hmm. Euh, dinañ dem Ndar. Ah, Ndar la juddoo man Ndar la juddoo Ndar la juddoo waaw ah tonton Mansour Ndar la juddoo saint ah la juddoo. Euh, dinañ jaar ci jaar jaaram. Mhm. chef d'état yi fi nekkoon depuis Ngalandou. Mhm. ba ci Blaise Diagne. c'est vrai que moo àndoon na chef d'état yi. chef d'état yi yëpp. Euh, takkal nañ ko médaille d'or fu ne. kon tonton Mansour mérité na sargal. ñu maa ngi ciy liggéey bu baax a baax. ci euh, dans l'ombre bëgguma sax ñoom tonton Mansour xamagul mais nan ko ñëw questionné depuis bi mu nekkee xale. macha allah nan reprendre ci bi muy xale. Mhm. ba fi muy fii. Mhm. tonton Mansour mooy Sénégal. Mhm. Euh, woy wi borom la. du man mi ko woy mais tonton Mansour jikkoom wax. ak juddoo te nit jikkoom bu sa jikko rafetee sa lépp rafet tonton Mansour nag mooy Sénégal jikko mooy nit tamit ma caaka i Ngoone Birima Joor Mbaar jikko ju rafet bu fekkee lu ñaaw du wax lu ñaaw xamul lu ñaaw ci bépp tariixa ci Sénégal ñëpp jox nañu ko mhm. dayo di ko yàlla amul sens interdit fenn macha allah fenn touche du bois wallaahi bu ñëwee kër seexul Khadim nga ni fa la bokk ñu bokk day mel ni fa la bokk mhm. mu ñëw kër Alaaji Malick bi nga xam ne ca la doon fa fee la nekk mm-hmm. man may Maodo ba baayam bu baax bi ne fa mm-hmm. nga ni tonton Mansour fii rek la. Mhm. bépp tarixa tonomasu xamul lu ñaaw. déedéet déedéet yaa ngi dégg xale yi di reprendre. ñaa ngi xool ko waaw. te chef chef d'état bu ñëw ànd na moom chef d'état bu ne ci Sénégal ànd nga ak Senghor. depuis Ngalandu moo ànd ak Ngalandu. Blaise Diagne ànd ak Blaise Diagne. Ah, Lamine Koura Gueye. maître Abdoulaye Wade. waaw président Macky Sall. macha allah nekk euh, nekk PS. nekk tubaarkalla macha allah. Euh, Tanor Dieng. Mhm. Euh, euh, ba ci le président Macky Sall. le mhm. président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade. Mhm. te ku ci nekk am na nu mu la tuddee. ku nekk ah, na la groupe. am na am na nu mu la tuddee le gardien de la constitution. mu daan ko wax le président Abdou tey mu daan ko le président de l' espoir. mu koy wax le président Macky Sall. donc xam nga loolu. depuis ci Serigne Fallou. ba léegi. kilifa diine yëpp. tonton man de aw payam. comme sama waajur. sama waajur il a quatre-vingt-dix-sept ans. am mhm. papa encore il est là. Mhm. mais tonton Massou dama ko def comme sama baay bi. wallaahi sa baay la. dama ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ba sama biir xol. wallaahi wallaahi njabootam nag mu ni lu waay di def. Mhm. te wowuloo ki ne laam. mere naa la dëgg la de. lu waay am. na nga woo ki ne laam. barki dem Adja Mbaye taral ma teraangu ju rëy lam bi ma doomam jox ëpp na 2 millions 500. te loolu lan moo ko waral. tonton Mansour. Mhm. njabootam su may woy. su ma ko dee woy di dinañ topp leen. Mhm. moom ci boppam a may baatareel boppam. la ko woy xam ne Pape Samb bu amoon jot wër ko Mansour. waaw ma caaka fàttali nga ne bii ma jor maa ma la jor tubaab bi. wallaahi wallaahi wallaahi. mais valeur yooyu nekk ci nekk ci yow. nekk ci Pa Mansour euh, nekk ci euh, magu ndaanaan yi yenn saa yi euh, dañuy am impression yi valeur yooyu noonu ñun xale yi wala xale yi amatuñ ko wala mu ngi commencé di di di manqué valeur yi ngeen amoon tonton Mansour valeur yooyu nu amoon balaa nga leen doon xamoon groupe 10 lañu woon mhm. ñoom Amane Ndiaye Samb Samba Jabare tabaarkalla mhm. macha allah Pakani Samb mhm. Demba Lamine Diouf Ali Bata Euh, Pape Mor Dior Seck. Mm-hmm. Euh, Alaaji Abdoulaye Nar Samb. Mm-hmm. tubaarkalla macha allah Pa Jabare. Mm-hmm. tubaarkalla macha allah Kani euh, Alaaji Maada. Maada nga dégg dama njaay sàmm woykat ndaanaan lu mag loolu ak Pa Jabare ju mën a woy tonton nii la mas mel ci biir askanam gis nga ndaanaan yooyu yëpp boo leen masaana bëgg a seet da ñëw ko tonton tonton Mansour nekk ak ñoom nekkin wu rafet. su leen président daan recevoir ñoom diis lay recevoir. Mhm. su leen alaaji jiili di recevoir ñoom diis la ñuy recevoir. Mhm. kilifa diine gu mën a nekk ci Sénégal tonton Mansour day dajale. Mhm. musul dem moom kenn. musul lekk moom kenn. musul naan moom ba léegi këram loolu moo fa xew. 6 heures lay añ. Aj Mansour yàlla na gudd fan. moo tax euh, ma woy tey jii maa ngi ngi préparé scénario loolu. ñoom Youssou Ndour ñëpp ku ku ma xam rek. Mhm. koo xam ni nekk nga Sénégal gi bëgg naa sargal boobu. Mhm. sa touche nga dugal ko ci bii ah, man man ci loo ne maa ngi ci. yow de yaay pay. man ci loo ne maa ngi ci man yow rek laa <laughs> boobu sargal dina nekk clip boo xam ni. sargal lay boo xam ni dinañ gëstu cosaanam gëstu ko partout. ah nu dajale lépp ñoom Aminata Mbengue ngi ja ku mu fu sa jaar. man ki ne lam naa fa dem. dinaa jaar ak ñoom. Uh-huh. Adja Ndeye Makodou Ndiaye dama ému ci clip bii ma ngay bëgg a. Ndeye Ndeye Makodou moomu nag dama bëgg ñu ñëw ci moom Pape Samba tegaaleel ma clip bi en attendant ñuy fekk jarbaatu Ndeye Makodou Ndeye Makodou mii ñuy woy. waaw euh, doom kee doomam la. waaw kay. Papa Ndiaye Bale jur xale bii. waaw Papa Ndiaye Bale bokk ak El Hadj Malick Bale Alaaji Malick Ndiaye bale la ñuy dénk ndey ma koddu Ndiaye kon noonu la wax ni sotti ci ak la man damay ragal sax mu jël temps bi yëpp may ñu ko teralee ñu kon parce que wooy <laughs> bu doon xale bu riis nga nga naan li ma amoon ci temps vraiment terale naa ko sama maa la ko wax moo gën a de. noonu laa woon ca mu nga woon ca sargal gis naa ko fa. waaw boobu sargal musta am gis naa ko fa. <laughs> Euh, doomam yi jóge Canada. wallaahi ñi jóge New York te lépp ñoo ko def. wallaahi wallaahi wallaahi. Adja Kiné Lam. Mhm. sunu yaay rek la ñu am. Mhm. di ko gis muy sëy sama papa sëy bu rafet ànd ak mm-hmm. moom bëgg ko ko sargal et li nga ko dafa neex déggal foofu day ma ko njaay lii jar na 14 milliards wooy bi neex na xeetu neex boo xamante ne exclusivité bi ak ajatu ki ne laam déglu leen ci tuuti rek en attendant ñuy déglu doomu Adja Ndeye ma koddu ma koddu njaay sa doom Abdou Ndiaye clip bu bees la ajaratu ki ne lam euh, euh, tëgg euh, woy la boo xamee ni dina jàll en boucle ci télévision Futur Média dinañ ci wax léegi mais en attendant ñu bàyyi leen ak du Ndiaye ci li nga xamee ni moo jëm ci li xew ci internet boo gisee internet bi xale yi ak li ñuy def ñu ngi lay TikTok te kat man nag li ma gën a jaaxal man man xaw ma Instagram. <laughs> xamoo Instagram xaw ma TikTok. xamoo TikTok xaw ma WhatsApp bi lañ ci def <laughs> ak li ngeen def li ñuy photo wu sax. li ko def ci euh, WhatsApp yi sax. <laughs> WhatsApp waaw est-ce que doo ma faral di. ak di dugal statut. statut yooyu yëpp dara laa ci xam. dan naan maire bi wérul ma ne ko xaw ma Instagram xaw ma xaw ma nu ñuy tiktokee. wallaahi xaw ma eh, am na ak Twitter bi ñuy wax. Twitter waaw dinaa ñëw na nga jàngal ma ko. il faut ma jàngal la ko ah, heureusement ba Mamadou Ndiaye mu ngi fii moom chaque jour mu wax ñu lu xew ci internet. parce que léegi mënatuñoo dund sans internet. regardez par exemple ku mel ni Adjatou Kiné Lam euh, xale yi euh, nii ñu koy euh, tiktokee ay ay parodie yoo xamante ni ndaanaa ni kenn ku ci nekk lii la xale yi xewal léegi pour ñoom ñu jàll xool yeneen mbir yoo xamante ni xew na ci biir internet ak Mamadou Ndiaye. di Ndiaye taw bi gën ci taaw yi. ca Canada. ca Canada nga xam ni. dafa woo waa Sacré Cœur ma koy sargal. Mhm. man xamoo nu ma demee. wallaahi ñu ma ma ñëw. Mhm. ñu teral ma teraanga ju rafet. Mhm. teraanga ju moom Adja Ndeye ma ko may ñaanal doomam yëpp ñoom day jaago. dégg nga Papa Ibba. Mhm. ndeysaan doomu ñu bëri baax yi. ñoom Pape Ndiaye Amérique Pape Ndiaye mhm. Amérique. Mhm. Papa Bale Ndiaye. mooy taawu El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj Malick Ndiaye Bale. Euh, sargal sa waajur. rëy na lool. damaa bég ci ñoom. façon bi ñu ko defee. tëri exemple la pour. Euh, nit ñi gën a gën a euh, yaay ju baax wala oh, baay bu baax. moom ku ko am ñun ñun am ñun li ñu li ñu gën a bëgg rek mooy. ñu woyal nu ko. Mhm. bi mu fi nekkee. c'est vrai que ñëpp bëgg ñu woyal leen seen yaay ñëpp bëgg ñu woyal leen seen ay waajur surtout surtout surtout bu sa ay waajur baaxee. laay lay la laa euh, ñu maa ngi préparé sama album bu baax borom kër gi dina ci bokk. waaw waaw. waajuram mën na ci dina ci bokk. wallaahi. ñëpp dinañ ci bokk. ndax album bu rëy la. Mhm. boo xam ni. Euh, nga delloo ma fa ma fa nga mais toujours toujours toujours toujours li may li may li may li may laajte rek mooy secret bi daal parce que ba léegi yaa ngi way yaa ngi waaj a génne album te dama lay delloo grand théâtre ci 2022 bi insha allah il faut ñu def sargal bu mag boo xamante ni ajotu ki ne laam la ak sénégalais yi mais daal man man daal force boobu nga am yaay macha allah loolu loolu day bégal euh, sax ñi nga bokkulal génération ndeysaan bi sama borom kër bi ne nelawee amatuma force mhm. amatuma courage amatuma courage Youssou Ndour mi ngi mi teg ci toog ci suuf. gàtt jën loog man ñu mën a baisse jamais les armes. wallaahi bul wàcc sa loxo. Mhm. Euh, yàlla moonu loolu yàlla la. Mhm. d'abord. Mhm. ak jom ji. ak ngor gi. te mën a woy nag lu am solo la de. tubaar fakkala macha allah. maa ngi dégg benn su ñu naan ko Youssou Ndour man ko kooku professeur mu ni man euh, woy professeur ci wax na dëgg. agrégé na bu yàgg yàgg yàgg. wax na dëgg. andi. ay agrégation euh, ñu am ci plus de 46 ans de carrière maa ngi koy nettali nii. nekkee xale bu ndaw naan yaay bàyyi ma mu dem woyal la ndax nga am xaalis. am dépense wallaahi wallaahi ah bu nu dajalee xaalis bi ndeysaan maa ngi fàttaliku sa papa ay vers les années 75 la woon 74 dajale ci lu mat 250 mille sama yaay ni ko tey la koy rey ana xaalis bi. Mhm. ñu koy xuloo guddeeg ba cëkk. yaa fanta mu baax mi ne ne mu ne ko eh xadi xale bi mu dee way ngeen dee jël mu dee way ngeen dee jël jëlal leen ko dara boobu <laughs> ñu dem jëndal ma sama yaay am na ci lal <laughs> armoire coiffeuse ma am ci lal ci deux cent et quelques mille yi coiffeuse am ci ay fauteuil euh. am ci lu nekk ci yooyu jamono kon nga xam ni euh, man way daal xëy na jox naa ko ak xam. Mhm. ndax bëgg naa ko. macha allah mais constance bi quoi. Ah, quarante quarante six ans de carrière constance boobu la sénégalais yëpp bégee. moo tax euh, ku la ku la dégg nga wooy rek daf lay ñaanal maa ngi jot ay yóbbante yu jóge ci ay xale li ma wax sànq ni. Euh, xëy na bi ngay tàmbali wooy sax. ñoom juddu muy nday yaxara ñoom yuusu ñoom Rima Fall xale yooyu nga xam ne ay nopp garmi la ñu yor. Euh, koo ci koo ci ko ci koo ci koo ci dégg mu wax ci Kiné Lam rek da ngay foog ni fekkee nañu sa jamono fekk seen ay wayjur sax yow ba ngay ay xale la ñu ñoom Amadou Diop 50. barki dem dama dem daal ñoom 50. Mm-hmm. xale yi rek ñoo ma invité woon. wallaahi wallaahi yóbbu bi maggal gi di bëgg a ñëw. xale yi dofuñu de dañoo ah, bëgg musique mag ñi de xale ba yaayam amul lu ma defalul ndar. wallaahi wallaahi ah dégg euh, macha allah ñoom Mohamed Silla xale yi ñu ñu ñu baax ñeeg ñoom xaadim. Mm-hmm. Euh, euh, xam nga. Mm-hmm. boo bëggee bàyyi sax. sa fan fii ñoo la ci dul bàyyi. wallaahi nga xam ne man fi mu ne doyal naa. wallaahi sama doom ji yow. Mm. yéen yéen a ma jox courage nag. ba tax ah, may woy nag bëgg léegi mu ngi eh, yónnee mu ngi yónnee ni bu doon sagom ñu woyal ko yaayam. danaa ko woyal yaayam ku sañoon ñu woyal la sa na ñu ma euh, euh, euh, hmm. ñoom Ami Samake. Bijou <laughs> nee na nga woyal ko yaayam. dégg nga loolu nee na nga woyal ko yaayam. ma jojo ñing Ariette Dupuy nee na ñu woyal ko yaayam. Fallou Dieng sax nee na moom dafa bëgg nga woy ko moom. moom Fallou moom loolu la wax léegi nii moom. moom nee dafa bëgg nga woy ko. Ah, donc gis nga ah. li mooy wane ni ki ne Lam diva diva éternel la ñoom alaaji alsaan wallaahi ajaa mbay wallaahi sama doom yu baax yu gore yooyu wallaahi euh, man daal man daal mënumaa fay kenn tubarkàlla alaaji Cissé mm-hmm. màggal gu réy gi mu màggal sama nijaay alaaji Cissé mu fi gën rek ak a baax gis nga nag bi may jox màggal mm-hmm. mën naa cee togg añ togg ci reer mm-hmm. togg ci ndékki màggal ca màggal waaw faram ci góor. wallaahi wallaahi Malick ci bakkaar. mooy nijaayu Birane dem mooy moo tax ma bëgg Birane Ndour mooy nijaayu Birane Ndour kon nga xam ni euh, màggal gi daal. Uh-huh. ñu sant Serigne Touba bu baax. wallaahi sant rek yàlla bu baax. sant rek ci santale yàlla bi ñu santale yàlla. Mm-hmm. Cheikh Ahmed sant rek sant rek. dara manqué wul. wallaahi wallaahi macha allah. di sant mm-hmm. Serigne Abo. Mm-hmm. Serigne Abo sama xalifa wallaahi te di ko jaarale ci sunu xalifa. Euh, Cheikh Mountakha mu baax. sëñ Mountakha sama sang soxna Bali Mountakha soxna Momi Kébé. ah soxna Momi Kébé. moom Ablaye Tage waaw moom Ablaye Tage. ak a baax wallaahi tubaarkalla macha allah. Hmm. soxna Momi euh, mu euh, soxna Momi. Hmm. soxna Bali Momi soxna Bali Momi. Hmm. soxna Asou yaay yaayu Cheikh yaayu Cheikh Abdou. waaw barki dem bi ma demee Amérique. soxna maam Marème mu soxna Bali. mu soxna Momi. daf naa ah, teral ndeysaan ma nga ma nga New Jersey. ak a baax ci man ak a gën ci man nit ku baax yaa daal xam naa ni lii il faut ñu yaatal ko wëndeelu il faut ñu jàkkaarloo wëndeelu man soo ma del siwaat ci wëndeelu bu ñu wëndeelu waaw waaw tubarkalla macha allah ñuy sant ñëpp Cheikh Gumbala sama waa ji nga xam ne at mu jot hmm. daf may màggalal hmm, hmm, ah alaaji mbay ja maa ngi koy mi ngi ci album xaadim ja di nga ko rendre hommage dinaa ko rendre hommage ndax kooku mën naa wax ni dépense sax daanaka daf ma ko doon amee wallaahi xam naa ci dara xam naa ci dara. su ma masaan a fekk ay saaku ceeb. Mhm. ay diwlin. Mhm. ay xar. Mhm. te ki na mbay ja. yàqu ci dara. sama waa jooju. yàlla na gudd fan. tey na alaaji mbay ja ci loxoom.

xam nga xam nga Aysatu maa ngi moom a yam Aysatu moom dara safu ko dara safu ko day xëy eh, takk ay veeram yu ngan di wax lu ko neex mais kenn gënu ko xool on l'adore moom Aysatu Diop Fall balaa ñuy tàggatoo nag bëgg rek kontaan naa yaay bu baax kontaan naa kontaan naa ñaanal yàlla foo toll ren kontaan naa allahumma amiin yaa sa nawle yi nga bokkal jamono mhm. ndax yéen ñëpp samay doom ngeen barkala ci bépp télé mhm. bépp rajo mhm. yal yàlla sutura yokk seen sutura waaye nag yow yow nag da ngay leneen mhm. yow yow da ngaa yokk ci uh, uh, xarnu kawar <laughs> ah, da ngay dolli cere da ngay yokk cere di yokk nii li ma xale yi naan li ma bisu Njaay ne léegi yow bëgg nga aja ki ne laa ma ne ko ku ne ko yow la bëgg man bëgg naa ko dëkk moom la man xoolal damay xëy ma koy woo maire Kinelaan damaa bëggoon a gis. te pour wan leen ni. wan damaa bëggoon a gis Pape Pape Cheikh Diallo man ko ay xale bi doom waaw kañ nga ban ban nga bëgg te damay diggee rek damay diggee rek. te doo ma jot ban jour kat su wootee ma ne man de laan bu ma wax sax man man. ma ma ma ne sama xel man de man de laam wax. amul problème en tout cas man kontaan naa. <laughs> maa gën a euh, kontaan dinañu euh, jàkkaarloo fileeg ay fan pour invité d'honneur parce que du ma doyal ci ay yëfu moom Ajaratu Kiné Lam que message yaa ngi jógee fu di nga xam ne lu ma rax naa la ko ràcc. moom la xamul moom la kenn xamul noo koy def. baax na kenn xamul di ndokkeel lii ko am jom rek ko mën. wallaahi wallaahi am jom rek yow référence nga. lu nekk ci réew mi. wallaahi loo nga représenté ci. ami daaw ami daaw góor mu ngi seetaan nee na mu ngi bëgg. Euh, ajot Fat Bodia. Euh, waa Amérique yi boo demee dëkk bu ñu naan Gambie di nga fa fekk Adja Ayda Socé moom barki démb dafa ñàkk waay juróom bu jigéen ñu ngi koy massawu. Adja Ami Ndiaye ca Alaska Ami Ndiaye Alaska Ami Ndiaye Mboota. Euh, ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ajot Koura ah ñoom ñëpp bég nañu en tout cas bëggoon nañoo toogaat ba ci kanam nag mais bon euh, programme bi moo demee noonu di nuyu sama doom Serigne Modou euh, fàttewuma euh, policeman Diagne borom po style ci dëkk bu ñu naan Gambie di ndokkeel itam sunu ay soppe yoo xamante ni ñu ngi bég ba tey ci jotaay bi te du ñu doyal bokk na ci soxna Sarr soxna ah, Sarr soxna Birane Sarr moom nee na bég na docteur Cheikh Kanté tata moom tamit ñu ngi seetaan maître Nafissatou Diop en tout cas ku lim juum jërëjëf yaay lan ngay tàggoo téléspectateurs yi xanaa di sant yàlla rek di sant di julli ci yonent bi di sant bu baax a baax sunu borom mi nu may ñuy ñëw fii di fi ñëw di fi ñëwaat ah di lay jox rendez-vous maa ngi ñëw waaw yow xam nga ni maa ngi yow du nu du invité d'honneur maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mm-hmm. foo ma woo ma na tey présentation au clip bi la woon rek mais waxtaan wi dañ ko yaatal prochainement ci invité d'honneur ak Adjatou Kiné Lam merci à toute l'équipe de production Midi Plus euh, dina dellu si waat incha allah ëllëg ci vendredi bi à partir de gërëm Corombaar euh, Ndiaye ak euh, rédaction bi Pape Samba mi nga xamante ni moo ko réalisé Bouba Ndour mi ko produire itam ñu ngi koy gërëm ñoom tonton Mac itam ñu ngi koy gërëm bu baax fàttali gërëm sama doom ju baax Khadim Thiam Khadim Thiam li ko war ci màggal gi yëpp lu bàyyam waroon def jëndi nag sama doom ju góor def na ko def na macha allah may gërëm ay ay ay rakkam mm-hmm. tubaarkàlla macha allah ñoom eh, ñoom Saliou Thiam mm-hmm. ñoom gañ sëriñ ay nogoy Thiam ay magam man damay tëb sax samay doom xam nga sama doom moom ngay Thiam moom bu ñëwee moom day dressé rek <laughs> defar ba mu baax macha allah <laughs> voilà lu neex nag du doy merci bon appétit et à demain 11h45